salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, président Khalifa maa ngi lay nuyu di la remercier parce que j'avais pas prévu de prendre la parole di nuyu conférence des leaders et je voudrais euh, à mon nom propre et au nom de tous les députés de la coalition Yewwi Askan Wi dire merci à la conférence des leaders jiitaloo leen ñu ba pare di ñu fakkastal contrairement au député de benn Bokk Yaakaar dicté woo leen ñu li ñu war a def assemblée nationale yabal ngeen ñu fa xam ni ay responsable ngeen fa yabal ngeen bàyyi ñu ñuy doxal et tey bi ñu génnee ci commission génn ci li nga xamante ni moom mooy plénière bi les sénégalais on su faire la différence entre li nga xamante ni moo doon am assemblée nationale ak li nga xamante ni moo nekk tey di fi am alors ñëpp xam na ni le niveau di débat a été élevé ci benn niveau boo xam ni ñoom ci seen bopp daf leen a jaaxal dañuy génn commission seeni collaborateurs ñooy ñëw di ñu dab ni li ñuy dund ren mësuñu ko dund et loolu yëpp ci seen mbaax la ci seen coaching la ci li nga xamante ni mooy seeni ñaan la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm au nom de tous les députés de la coalition Yewwi Askan Wi amoon mon nom propre et au nom de Massata Samb et de Mamadou Niang aussi ñoo ngi gërëm bu baax l'ensemble des 53 députés de Yewwi Askan Wi parce taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu am ci mbir mi bi mu xewee ba léegi Massata sa famille sa famille politique Mamadou Niang sa famille biologique et sa famille politique kontaan nañ ci taxawaay bi bu baax a baax et ñu jukki ci ki nga xam ni mooy le président du groupe parlementaire Birame Souleye Diop di ko sant bu baax di ko gërëm man nag li daal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf ma dal mës na wax ni dama tiit ndax réew mu amul justice naka la ci nit di dundee mais bu ñu xoolee li xew ci ñaari fan yi gëm nañu ne Sénégal amul justice comment est qu'on peut prendre vouloir prendre ñaari député yoo xam ne ñu ngi biir assemblée nationale nga indi plus de deux cent cinquante personnes escadron bu doy waar ni par force da nga leen di jàpp manu militari yi il a fallu ko ma dugal leen sama bureau pendant six heures de temps bi ñu ñëwee gendarme yi taxaw ci sama bureau ni dañ leen di jàpp ma informé la président du groupe parlementaire biram Souley député yëpp ñëw fekk ñu sama bureau ci la gendarme yi soog a wàcc pour dégager foofu alors bi ñu waxtaan ak ñoom ni leen on prend l'engagement que ni lundi danañu ñëw wala mardi à 10 heures danañu ñëw ils n'ont rien voulu n'entendre li ñu bëggoon a dégg mooy jàpp nañ leen manote leen toroxal leen sànni leen ci ay pick-up on s'y tous les députés de la coalition Yewwi Askan Wi et même les députés de Wallu donc ñoo ci opposé wu ba ñoom ñu mujj reculer bi ñu demee aussi dañu jàpp ni comme ni ko président Déthié waxee député su fekkente ni ñun sunu mbalaanu kiirlaay bi amul lenn lu ñuy jariñ waaye jaratu ko nag wax fa dëgg yàlla un député en session ñu jàpp la taxañ la ñu ne déete waaye démb ñu interroger leen question yi ñu leen posé yëpp ñu ne munuñu ci répondre parce que dañu am mbaraanu kiirlaay te dañu nekk en session duñ ci répondre tey ñu ñëw taxañ leen fanaan loo leen fa démb war leen fa fanaan loo waat tey loolu yëpp jàpp nañ ni jaay doole la mais du ñu ci wet incha allahu rabbi et li leen intéressé rek am na ku ko wax sànq mooy motion de censure u deme bi ñaari député yi absenté ngir ñoom ñu mën a jàpp ni duñu mën a am majorité ngir daaneel li nga xamante ni mooy sa gouvernement mais jàpp naa ni aussi taxawaay bi danañu ko continuer parce que incha allah li nga xamante ni moom la ñuy def à travers suñu groupe parlementaire duñ ko bàyyi et li ma ci gën a metti aussi mooy cette motion de censure bi nga xamante ni dugal nañu ko bërki démb ñu convoqué assemblée nationale en respectant les délais on a introduit aussi beneen résolution pour que l'assemblée nationale puisse se réunir afin de lever li nga xamante ni mooy poursuite yi ñuy toppee sunu moromu de parce que loolu aussi réglement intérieur moo ñu ko may on a fait benn résolution déposé ko le lundi à 10 heures sur la table du président de l'Assemblée nationale il n'a pas voulu statuer là-dessus et loolu aussi jaaxal nañu bu baax a baax mais de toutes les façons combat bi danañu ko continuer avec vous danañu ko continuer avec les députés de l'opposition ba yàlla may ñu ndam incha allah maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm